bëggee di jot ci vidéo yi am njëriñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV da ñëw bés fii ñu bind sabonné soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njëriñ du la raw. benn bés ma joge ci université bi ci Niamey traversé pont bi ñu tuddee John Kennedy ma jëm ci musée ba ñoo gën a mag musée ci Afrique presque ba ma duggee ma gis benn garab bu wow ci càmmoñ ci càmmoñ délégation président bu Niger ñu ko dégg général Séni Kountché. mu dugg si ànd ak ay gan yu tedd ay borom xam-xam ñuy visiter musée bi ñu taxaw ci weti garab bi waa leen expliquer ne garab bi moo nekkoon ci désert bi ñu dee Ténéré Ténéré benn désert la ci weti Arlit boo jógee ñame da ngay jaar yoon bi jëm Dosso Tawa Birmingham nga bàyyi Zaïre dem Agadez balaa nga yegg Arlit fi ñuy gas gasi uranium bi foofu la désert di Ténéré nekk ci weti montagne ñu dee Layir garab bi def na ay siècle deewul ñu foog ne miracle yonent la wala miracle benn waliyu la muy nettali man nag booy nettali lu dul xam-xam du ma tey sama bopp ba ma lay tontu ma ne ko déedéet du noonu de seeni kunte gestu yam ci man ne bu dul noonu nan la te moom dafa raglu bët di dafa nekk ci jébi di wallax wallax te général la moom moo coup d'état woon amane jóori mu ne ma nan la ah ma xam ne nattu yàlla bi ëpp na te <laughs> suñu benn kilifa mi ngi ci Sénégal noonu la meloon boo waxee lu dul noonu mu tontu la mooy xaadima jaxate kala mbokk la ci xaadima rasul mi ngi naan allahu yaalamu anni lam a akun abadan ahwa unaasan uhayim bi bonjour yàlla xam ne ne tubaab yi toog nii du ma mës a jéng ci bëgg leen koo wax ne boo koy nuyu doon asalaamaaleykum waaye bonjour nga wax mu ne man du ma leen bëgg bu doon xeex colonisation la allahu yaalamu anni lam akun abadan ahwa unaasan uhayihim bi bonjour yal nañ ko yàlla moom boo waxoon lu dëgg rek mu ne du dëgg mu a ma li mu wax bu dul noonu lan la ma ne ko excellence général cekk xool ko garab boobu désert bi nekkuloon désert tàmbali naa wow quatre siècles balaa Seydina Isa ma ne ko li ko tàmbalee lakk caat ba nga yegg ci Sanhaj yëpp géej la woon Sanhaj mooy senegal dañoo yàq tur bi ne Sénégal waaye la mi ngi mel ni Rufisque du Rufisque Rio Fresco la. Hollandais yi fu ñu ñëwoon ñu sonnal leen ba ñu ñëwee Sénégal kenn sonnal leen ñu tuddee place ba Rio Fresco yoon gu sedd ri Rio fre Fresco ñu soppi ko ne Rufisque waaye Rio Fresco la du Sénégal Sanhaj la. ki bind téere bi ñu tuddee ajuruma téere bi ñu njëkk a jàng ci grammaire arabe ci Sénégal ki ko bind seetal ñu ngi ko bind Sanhaaji ma ko ca lak cat di géej gi nga Niger Nigeria Cameroun chat ci lañu Tim, tiim gi fofu la tambalon ba fi di sotti ci océan Atlantique ma ko Alexandre le Grand te moy al askandar al maqduni ci arab al qanan ko zulqarnayni ñëw na ba ci geejju Sénégal gi fi ay ni atin am lu muy tekki moy ndox mo xam dafa bandantal ñuulul vertul dafa jël ci dikk bi dafa tik te Atlantique li muy tekk ci làgg làkk yooyu mooy géej gu bandantal Zulqarnayni 33 ans la dund ñi ngi judd année 356 euh, 57 mu faatu année 324 kon 33 ans la dund comme suñu soxna su maximum jaaratullaay buso yal na yàlla taas ci barkeem waaye comme ni Isaa feeñ ci kaw suuf si mooy ibnu Mariam mané ko nak ndokh mi xoot xóot yi ñett xoot xoot la amon benn bi lak ciat ba léegi wawul beneen gi moy fofu garab bi ay reenam dafa doon wacc be 100 mètres ci suuf di ndokh mi nek ci ron bi moko ko dund lo won ba ndokh mi gëné wacc moko wawlo mané ko benen xoot xoot gi moy fi ñu tuddé tawdini moy kasu bu bon bi ñu tëjoon Modibo kayta ci jamono musa Tarawele ñu ngi gas fofu xorom xorom bu ñu tuddé nduuman ci wolof bambara nan ko far dafa mel ni alaam xorom bu baax la na ngeen ci bàyyi xel yéen góor ñi dafay faj feebaru yoom di ko utiliser baax na feebar bi defa siiw léegi ci àddina bi doo màgget rek yàlla natto la feebar boobu yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi waaye boo ko di boole sa ñam yàlla dafa lay protéger ci yooyu yàlla nañ ci yàlla te barke foofu tamit géej gi dafa nekkoon moo tax mu waw mooy xorom boobu ñu génn ci désert bi ba ma ko waxee mu ne yow foo jóge dama xam ne nag tàmbali naa am succès ko Sénégal laa jóge <laughs> tiitaanga bi dem na ko Sénégal laa jóge ba ma ne ko Sénégal laa jóge mu xool ma njoolaayam di général di président mu ne ma wallahi yow mun naa wax lu dul xam-xam dëkk Cheikh Anta wallahi lii la ma mu ne dëkk Cheikh Anta jaahil munu faa nekk mu ne jangul jàngul munta nek ci rew mu Cheikh Anta nit ku yef ku doyadi ku wayadi ku ko dowul du mën joge rew mu Cheikh dal len ak jamm ci sen sen bi di sama dine tv So bëggee du jot ci vidéo yu am njariñ ñi bayiko ko ci sen bi da ngay ñëw bés fi ñu bind sabone so noppé nga dal di bés cross bi nga dal di aktive bi ci kaw moy tax ben njariñ du la